tey wax nag waxtu julli ak ak julli bu la ca dara rawee noo koy fayee nee na boo dikkee fekk ilimaan am lu mu la rawee bu sëlmalee da nga koy fay waaye doo ko bàyyi noona muxtaaru suba mi ngi tàmbalee ci bu fajar xaree ba leer gi tasaaroo foofu ci penku bi ndax foofu leeru jant bi rek moo tàmbalee ñëw bu leeree ba tasaaroo nag loolu fi la muxtaaru suba tàmbalee dana dema dem nag ba nga xam ne bët a ngi set ba bu nit dee ñëw te muurul kanamam boo ko xoolee daal di xàmmee kanamam ne kooku diwa foofu la muxtaar mi yem daroor yi tàmbalee foofu nag ba jant bi fenk bu cat jant génnee nag moom xamal ne yaari waxtoom yépp jeex na lañuy wooye muxtaar ak lañuy wooye daroor yi yépp jeex na fay bor rek moo des nee na suba moom ñaar ràkk dong la benn rek moo la ci mën a raw waaye bu la ci ñaar rawee fekki woo ci dara boo ci fekkee benn nag kon bu ñaareel ba lay doon kon bu ilimaan sëlmalee bu nga jóg ba taxaw jonn da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha te bañ a wax allah akbar ko defee nga jàng fatiha ku saar te biral ko te itam nag bu fekkee ne sa ilimaan xunóotu toon wala da ngaa dikkoon fekk mu xunóot ba noppi fekki woo xunóot ji kon yow ràkk bi nga xam ne ci ngay fayee ci ngay xunóote ndax yow mooy sam ñaareel bu fekkee xunóotoon nga ci ràkk ba nga fekkee ilimaan nag kon du aajoo ngay xunóotaat da nga dégg ba tàyyi nag bu ilimaan salmalee ba nga jóg ba taxaw bay fay waxal allah akubar ak bul wax allah akubar waaye takk-takk bi rek mooy bu fekkee daal jullit ilimaan ba la nga ci am mëtul sax benn ràkk ndax ràkk bu mujj ba nga fekke te fekke woo ba ñuy jàpp ci woom ya kon boo jógee da nga wax allah akubar bala ngaa tàmbalee jàng fatiha da nga moytoo li xaamaat nag mbaa lu koy nuru ndax xas nga tàmbali ba noppi rek moom waaye nag da ngay daal di wax allah akubar boo jógee ba taxaw doora jàng fatiha bi soo julli tegaloo na war a tegaloo rek ba tey bu fekkee la nga am julli ilimaan dafa nekk ñaar ràkk dong yem ci ëpp ko yeesu ko ba tey kon bu ilimaan sëmbalee ba nga jóg ba taxaw da ngay wax allah akubar doora tàmbalee jàng fatiha waaye lu bokk te yooyu yaar rek nga xam ne yow fekk nga julli ilimaan benn ràkk dong loolu matul ñaara mbaa fekk nga ci ñett loolu ëpp na ñaar su ilimaan sëmbalee ba nga jóg ba taxaw doo wax allah akubar da ngay jekki-jekki tàmbalee rek jàng fatiha ndaxam boo wax allah akubar lu tax nag julli ga yàqu muxtaarum tisbaar mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee bu jant bi rëccee nag mën nga koo xàmmee ci takk ndeer yi nga xam ne boo xëyee suba jëm ju ne takk ndeeram day jëm soow tey wàññiku nag ndànk-ndànk boo dee xool takk ndeer ba muy wàññiku di wàññiku ba ne teg wàññikoo tut xamal ne kon jant bi daa nekk ci digg asamaan yooyu jamono li ci ëpp rek faaw takk ndeer ba dana fa des mu guddoo mu gàtt xëy na nag mu am lu néew a néew mu jeex tàkk-tàkk moom takk ndeer ba bañ a des dara dara su jant bi bàyyikoo foofa nag jëm fa muy soyee ji nag loolu mooy rëccug jant bi nee nga la ci ëpp faw takk ndeer ba day des su boobaa dañuy bàyyi ba takk ndeer ba yokk nag jëm penku ñu door a jàpp ne tisbaar jot na bu fekkee na nag takk ndeer ba daa jeexoon tàkk-tàkk dañuy bàyyi ba ab takk ndeer sosu jëm penku ñu door a jàpp ne tisbaar jot na kon foofa la muxtaarum tisbaar tàmbalee dana dem nag ba nga xam ne boo nattee takk ndeer bi mu gudde ne boroom takk ndeer ba loolu la ñuy wooye alxaamatu ab taxawaay te fekk konte waale woo ca na takk ndeer ba toll woon ba ngay wax ne tisbaar jot na na takk ndeer ba toll woon doo ko ca boole dangay bàyyi ba la ci yokk nag ca takk ndeer ba guddee ne boroom takk ndeer ba bu dee sa jëmmi bopp nag yow doomi aadama ji manees naa takk ne doomi aadama bu ne bu nattee ñeenti xasabam mooy tolloo ko taxawaayam mbaa nga ne bu nattee juróom ñaari ndëggoom mooy tolloo ko taxawaayam waaye jëmm ju mën doon rek benn la soo gisee takndeer ba mujj gudde ne jëmm ja te kontewaale woo ci na takndeer ba toll woon ba tisbaar di jot rek xamal ne kon foofa la muxtaarum tisbaar yem darooriyoom nag tàmbalee foofa ba jant bi so mbaa nga ne ba nga xam ne sa diggante jant bi so genn julli moo fa xaj su boobaa dañ koy moomale takkusaan ñu mujj bàyyi tisbaar tisbaar bu la ci benn rakk rawee kon fekk nga ci ñett bu njëkk ba rek nga fekkiwut kon bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw doo wax allahu akbar ndax li nga fekk ci julli ëpp na ñaar ñett la ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha ak sara te yàllu ko bu rakk boobu jeexee nag nga toog taay sëlmal mu daal di jeex bu fekkee tisbaar ñaar rakk moo di raw kon ñaar njëkk ña lay doon su ko defee nag kon fekke nga ci ñaar bu liman sëlmalee kon bu nga jóg ba taxaw da ngay wax allahu akbar da ngay wax allahu akbar doo tàmbalee jàng fatiha rakk bi nga njëkk a taxaw noonu sam ñetteel la nga jàng ca fatiha ak saar te yellu ko ndax moo doonoon rakk bu njëkkub iliman boobu nag bu rakk boobu jeexee bu toog foofu ndax sam ñetteel da ngay jóg andi rakkam ñeenteel ba mooy itam jàng ca fatiha ak saar te yellu ko nga xam ne yow moo nekk sam ñeenteel te nekkoon ñaareelu iliman fi mu tolloogun mooy tisbaar ñetti rakka moo ci raw kon bu mujj ba képp nga fekkee bu ilimaan sëlmali na ngay tàmbalee ci ba mu la njëkk rawee kon boo jógee ba taxaw doo wax allahu akbar ndax ndegam ñett moo ci raw kon benn képp nga ci fekkee ngay jékki-jékki tàmbalee jàng fatiha boo noppee teg cew saar te yellu ko bu rakka boobu jeexee na nga toog foofu taaye ndax yow sab ñaareel la rakka boobu maanaam moo nekkoon benn bu njëkk waaye ab ñaareel la soppi ko ci yow da ngay toog foofu nag taaya nga seetluwaale na doo seet ni fii ilimaan toogu fi woon man du ma fi toog mbaa fii toogoon na fi danaa fi toog déedéet yow fu doon sab ñaareel rek toogal foofa du tee na rakk bu ne moom lam ci jàng nga ci jàng rakk bu mu jàngan fatiha ak saar da nga ci jàng fatiha ak saar rakk bu mu jàngan fatiha kese da ngay jàng fatiha kese boo taaya taayi digg ba jóg ba taxaw rakk bi nga taxaw ñetteel la ci yow waaye dafa doonoon ñaareelu ilimaan moo tax da nga ci jàng fatiha ku saar te yellu ko ilimaan toogal na foofu ndax daa nekk ñaareelam yow nag foofu bul fa toog ndax yow daa soppi ku sam ñetteel moo tax mu ne duuna julloo si yëjëri boo jógaatee rakk bi ngi mujj andi fatiha kese nga ciy jàng bu ko defee nag mu nekk sam ñeenteel fekk nag moo doonoon ñetteelu ilimaan kon fatiha kese ngay jàng ci rakk boobu te yellu ko bu ko defee sa jul daal di mat fa nga waxam ne fa la muxtaarum tisbaar yam te mooy boo demee ba takk ndeer tolloog borom takk ndeer bi foofa fa la muxtaarum takkusaan moom tàmbale xamal ne kon muxtaarum takkusaan mi ngi yem ci boo demee ba takkusaan yi suuf jant bi bëgg a soo ker yi jàppaloo boo xoolee naaj wi mu mel dafa xaw a xong maanaam na mu weexe woon ci bëccëg ba defatu ko ndax léegi jant bi day bëgg a so te mi ngi jëm ci xong naaj wi itam xaw a xong foofu nag fi la muxtaarum takkusaan yem buñ ne moxtaara mi ngi yem ci jaluk suuf si nag moom takkusaan daroor yoom moom moo tàmbalee foofu nag ba jant bi so bu jant bi soyee rek daroor yoom jeex na nga xam ne kon ñaari waxtoom yépp jeex na nee na takkusaan nag moo ko tisbaar ñoo yemoo rek ci bu la ci benn rakk rawee ak bu la ci ñaar rawee ak bu la ci ñett rawee lépp lépp lépp ñoo ko bokkale xarfan bi xarfin mooy ñoo yemoo képp képp képp jëluñ ñu koy teqale naa la bu la ci benn rawee mbaa ñaar mbaa ñett mbaa dara na nga ko xamoon léegi rek tisbaar lépp ñoo ko bokkale timis muxtaaram mi ngi tàmbalee ci bu la wóoree ne jant bi sona dana dema dem nag ba xong-xong yi nga xam ne moo des fa jant ba soye woon raaf xong-xong yooyu moo tudd shafaq fàddu shafaq mooy xong-xong yooyu raaf su boobaa foofa la muxtaarum timis yam darooriyoom tàmbalee foofa ba fajar fenk mbaa nga ne ba nga xam ne sa digganteeg fajar di fenk genn julli moo fa xaj su boobaa ñu moomale ko gee ma mujj timis bu la ci benn rakk rawee kon bu njëkk ba lay doon kon am nga ci ñaar boo jógee ba taxaw da ngay wax allahu akbar door a tàmbalee jàng bu ko defee nga jàng fatiha ak saar te biral ko bu rakk boobu jeexee nga toog foofu taaye mu daal di jeex ndax benn rek moo la rawoon nee na bu la ñaar rakk rawee ci timis kon nga fekk mujj ba ñaar ñu njëkk ñu raw la kon boo jógee ba taxaw doo wax allah akbar ndax la nga fekk julli ilimaan benn rakk la kon doo wax allah akbar boo jógee ba taxaw ngay jékki-jékki tàmbalee jàng fatiha ak saar da nga koy biral nag barak boobu jeexee na nga toog foofu taaya ndax xam nga foofu sab ñaari lay doon da nga fekke woon nga benn ci timis kon boo jógee bu fay benn rek foofu day nekk ñaar ci yow da nga daal toog foofu taaya taaya digg boo jógaatee nag andiwaat benn rakk boo xam ne mi nekk nekk sa ñetteel du tee nga jàng ci fatiha ak saar tëgëral ko moom itam nga xam ne yow mooy nekk sam ñetteel waaye moo doonoon ñaareelu ilimaan kon nan ko waxe woon rek doo seet ne fi ilimaan toogoon na fi faaw daa fi toog wala fi toogi fi woon du ma fi toog déedéet nga seet yow foo amee ñaar rek daal di toog foofa taaya loolu mën nga koo mën nga koo jàng ba noppi fàtte ko noonu ñu ko waxee ndax da ngaa miin ñaaraat ko njëkk ñi tamit sësaloo kon bu ñu rawee ba ci mucc mën naa am loolu nga juum ci léeg nga jàng dara ba noppi juum ci mel ne ngay jiite rek am ñaari rakk jug ba taxaw nga xam ne say loxoog say bëtiwoom taqalikoo naag suuf ñu sàbbaal la nga dellu si te di laa waxoon ne la say ñaari loxo ak say bëtiwoom bu ñu xasee tàqalikoo suuf da ngay wéy rek te su jóot su jootu xable salaam waaye li ci ëpp mbooloo mi topp ci gannaaw moom dañ lay juumloo ndax li daal di sàbbaal ndax miinuñu loolu bu ko defee nga daal gaaw daal dellu si muxtaarum ngee mi ngi tàmbalee ci fa muxtaarum timis yemoon te mooy da nga ne woon xong-xong ya des ci sow ba fa jant ba sooy woon bu demee baraaf loolu moo tudd fàddu shafaq fa la muxtaarum timis yemoon foofa la muxtaarum ngee tàmbalee danaa dama dem na bu guddi gi boo ko defee ñetti xaaj xaaj bi jëkk ba war a jeex xaaj bi jëkk ba yem rek foofa la muxtaarum ngee yem kon nag saa yu nekk day aajoo kon nga xam fa guddi ga tàmbalee mooy fa jant ba soye ak fa ñu noddi salaatu mi fajar fenk bu ñu nee jant baa ngi so ci misaal sept heures trente cinq jëm quarante bu ñu nee ñu ngi noddi salaatu ba tey cinq heures trente jëm noonu diggante boobu ngay def ñetti xaaj bu ko defee ñetti xaaj xaaj bi jikko bu fu mu yem rek xamal ne foofu la muxtaarum gee yem daroor yi ba tàmbalee foofu nag ba fajar fenk fajar fenkee nag yaari waxtoom yépp jeex na su fekkee benn rakk moo la raw ci gee kon fekk nga ci ñett kon boo jógee ba taxaw doo wax allah akbar ngay jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha ak saar te biral ko bu tombe ba ilimaan njëkk julli yow nag bu rakk boobu jeexee rek nga toog foofu taayu sëlmal ndax benn képp leen rawe woon te mi ngi noonu bu lay ñaar rakk rawee ci gee kon ñaar nga ci fekkee kon boo jógee ba taxaw da ngay wax allahu akbar doora tàmbalee jàng fatiha te da ngay jàng fatiha ku saar biral ko ba rakk boobu jeexee nag si yow sam ñetteel la bul fa toog da ngay jógaat indiwaat rakk bu mel noona moom it jàng ca fatiha ku saar te biral ko nga xam ne yow sab ñeenteel la te moo doonoon ñaareelu ilimaan waaye yow sab ko na sab ñeenteel nga xam ne kon yow ñu see rakk wal bëtiko moo tax ñaar rakk yi nga fay ci gannaaw ilimaan yépp da nga caa jàng fatiha ku saar te biral leen ndax moo doonoon ñaar rakk am njëkk daa wax ne gee bu la ci ñett rakk rawee kon benn ba ci mujj rek moom nga fekke kon boo jógee doo wax allah akbar nga jekki-jekki tàmbalee jàng fatiha ku saar te biral ko mu mel ne mooy bala ilimaan njëkk rawee te bu rakk boobu jeexee na nga toog foofu taaya ndax yow day nekk sab ñaareel ilimaan toogu foon waaye yow day soppi ko sab ñaareel moo tax da ngay toog foofu taaye taaye digg soo jógee ba taxaw ci ràkkam ñetteel da nga ciy jàng fatiha ku saar te biral ko li muy nekk nekk sab ñetteel ndax moo doonoon ñaareelu ilimaan neen ràkk boobu nga taxaw jàng ci fatiha ku saar te biral ko nu wax ne mooy sab ñetteel loolaa tax waroo faa toog ilimaan moom toogoon na fa ba ràkk boobu jeexee ndax ñaareel la woon ci moom waaye yow daa soppi ko sam ñetteel moo tax doo toog foofa da ngay jóg andiwaat rakk boo xam ne fatiha kese nga cee jàng te yelu ko ko defee nag mu doon sab ñeenteel nga daal noppi ci fay ga ñi dégg fiq nee nañu la lay xamal ne boobu rakk bokk nga ca ba da nga ko wàññiwaale ak bokkoo ca ba doo ko wàññiwaale mooy rek bu fekkee ne jàpp nga ci say wóom bu dëgër ànd ak ilimaan ba muy jàpp ci wóomum kon boobu rakk da nga ko wàññiwaale bu fekkee amoo loolu nag kon doo wañuwaale boobu rakka koo xam ne daal ba ilimaan di jàpp ci wóomum àndut ak moom jàpp ci wóomum bu dëgër kon boobu ràkk raw na ko nee na ku fekk ilimaan ci taayam di mujj ci gàttal daal koo xam ne ràkk mujj bu nga fekke te fekke woo jàpp ci woom ya loolu rek moo gën a gàtt kooku day ànd ak ilimaan ba ilimaan salmal mu jóg daal di wax allah akbar daal di susali ay rakkaam na mu war a susaloo nga xam ne moom jarul ñu naa ko toogal béréb sàngam defal nangam moom moom mënul julli julli boppam rek ñooye moom waaye nag na mooy too jóg di ci xaamaat ak dara ndax moom ni ko ñëw na ba ànd ak ilimaan rek daal di tàmbali ci julli gi bu ilimaan salmale bu jógee day kàbbar na wax allah akbar daal jàll na tegal julleem na war a tegaloo rek nu fàttalee ne waxtu julli yi moom am nag jàppandal gu toll ne mën nga cee am calendrier bu mat ci at mi yëpp bis bu ne rek nga xam waxtu wa ngay julli julli juróom du aajowoo ngay seetati tegtal yi nga xam ne moom la ñuy wax noonu ci buñ ko dee jàngale